بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي mbokki jullit yi seetaan seen télévision Touba Média dikkaat nañu leen ak yéen ci beneen jataay ci sunu émission bi ñu tuddee min nuuril wahyi xam ngeen ni jataay bi moom jamono ju ci nekk rek ci alxuraan la ñuy dellu jël fa benn aaya boo xam ne mooy nekk sunu mexwar xiwaar mexwarul xadis wala kalaam émission bi itam xam ngeen ni barnaamij xiwaar yi la loolu yépp itam ngir di dellu ci alxuraan di ko jàngat di ci génne ay jàng ay duruus ak ibar ndax xam ngeen ni weeru koor mooy ni ñu ko yàgg waxee rek mooy jamono ji nga xam ne saa bu ñëwee war nañ di jàngat alxuraan ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la ko daan defe ndax mooy anniversaire wu alxuraan ci la alxuraan wàcc ki ñu dalal tey ci jataay bi mooy Serigne Moustapha Diop alkok yi ñu xam ko lool ci yëngutoom moom tam ni ñu fi jaar rek di sëriñu daara di jàngalekatu diine di itam koo xam ne yëngutoom yépp ñu ngi jëm ci gëstu diine ak li ñu tudde wisaare xam-xamu diine sàmm ko ba mu ñoŋ waaye itam jot li ko ñu ci war a jot ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko santaane woon ni ballighuwaan nii wala aya sëriñ Moustapha kon dama lay bàyyee ak mbokk yi nga xam ni ñoo ñuy dégg di seetaan seen télévision Touba Média nga nuyoo ak ñoom ñu jukki tey ci li ñu indi ci jataay bi li ñu indi nag lu am solo la ci dundu jullit ndax dafa jëm incha allah ci wàllu pas-pas ba tey suñu diggante ak ñoo xam ne ñenn ñi dañ leen a tudde ay mbokk maanaam suñuy mbokk lañ ndax ci wàllu pas-pas am na lañ bokk gëm mooy yàlla tabaraka wa taala bokk nañ gëm yi itam ne am na ay kutub yu jóge asamaan waaye xaj na foofu lañ yem foofu lañ bëgg a dem su diggante ak ñoom ci wax joo xam ne suñu borom tuddalante alxuraan am na itam lu mu ñu dénk waaye ñu bàyyi la nga nuyoo ñu door a dikk ci li ñu war a jóg tey mu suñu diggante ak nasaraan yi bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fattaahu wahaabu yaa rasaqu yaa maliki diftahu wahab li yaa warsuqni bi kunil aana dayqi azil aajilan bil bishri mamaradin xata uqima li diinillahi arkaana yasiru jooxe li tuuba waxmini waqini adal wara والتتب لسما إسكانا لك السماء والأراضي والهواء بها مشارك ليرط مشيك هبانا أجب وسلي برسليم على سندي محمد والتهب لي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñi ngi nuyu ñi nga xamante ne ñooy déglu ak seetaan Touba Média fu ñu mën di nekk ci àdduna bi di bég ci dalal bi bi nga xamante ne sa ñax ko ba dalal nga ma ko ci seen barnaamij bu am solo bi émission bu bu am solo bi nga xam ne kon mooy leerug wax yu wala leerug li nga xam ne moo ci moo jóge ci suñu borom. xam naa ne suñu jàngatite droit bi. moo tax moo tax.
incha allah incha allah léegi ci min nuuril wax yi. yoon wi incha allah dañoo war a waxtaanee suñu diggante ak nasaraan yi. damay wax ni nasaraan yi diine lañu yoroon ndax lépp lu commencé wàcc bàyyi ko ci borom bi tabaraka wa taala ci wax yi daale ci sunu maam aadama ba ci yonante bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam day dugg ci diine ci ñuy waxee al islam lépp yonante yëpp yonante yi lislaam lañ kon nag yonante yi sax jaaduwut ci ñoom laa nufarriqu bayna ahadi min rusuli jaaru ci jaaduwut ci ñoom ñuy gëm ñii di bàyyi ñële ñun ñëpp lañu war a gëm gëm nañ ibrahim gëm nañ li wàccoon ci suxufam yi gëm nañ daawud ak li yàlla li ko yàlla booleeloon ca zabuur gëm nañ tawraat gëm nañ injil gëm nañ alquran ñi nga xam ne dañoo gëm injil xaj na tënku ci yonent yàlla bu ñuy wax isa alayhi salaam tudde seen bopp ay nasaraan delloo tur woowu ci ab dëkk bu ñu xam ñu leen di wax ay nasoora sunu borom dafa am lu ñu wax sunu diggante ak ñoom ci wàllu yu baree bare am na fu ñu yàlla dénke seen mbir ñu jox leen ñu am ci ñun ci àq daganal na ci ñun sax ñu lekk seen ñam waaye nag lépp loo gis muy relation rek ci wàllu pas-pas leen lu ci nekk dafa am fu mu war a yem yàlla nee nañu ci alquran ci suratul baqara walan tarda anka alyahudu wala nasara xatta tattabia millatahum qul inna huda allahi huwa alhuda wala an wala in ittabacta ahwaahum bacda allazi jaaka min alcilm maa laka min allahi min waliyin wala nasir sunu borom tabaraka wa taala moo ñu xamal ci ay yi nan lañu war a jëflante ak ñoom ndax ñoom ci seen comportement am na ci loo xam ni bu ñu leen ci toppee rek xaj na du baax ci ñun sëriñ Moustapha suñu diggante ak nasaraan yi lan moo ci war fan la tàmbalee lan lañu war a dégg ci ay bi bismillah xam nga aaya bi bi mi ngi leeral lu lu am solo loo xam ne danaa wax ne su su ko jullit ñi gëmoon seen relation ak ñi dul jullit chrétien yi ak siif yi dana gën a leer lool walan tarda ankal yahuud walan mukk li maanaam musta am te du am mukk duñ leen gërëm loo mukk ñoom siif yi ak chrétien yi siif yi ak nasaraan yi du ma wax chrétien ndax chrétien français ñu ngi koy wax waaye chrétien kon day firi ne kon dangaa nangul ne ñoom seen diine ji mooy diine sayyiduna Isa alayhi salaam te déedéet nas kon nañ ko tuddee ni ko alxuraan waxee rek nasaraan la ñoom nasaraan yi ak ak ak ak yahud yi alxuraan nee na du du duñu duñ gërëm loo jullit ñi mukk feek topp jullit ñi bàyyiwuñ liñ fi liñ liñ jàppoon te mooy lislaam topp ñoom liñ gëm te alxuraan lam ca tegaat ne kat na nga wax nag ne ak jub mooy jubu yàlla ndax ginnaaw inna diina indallahi al islam maanaam diine moom moo benn la fa la te mooy lii fi si Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam indi yeesalaat jëfi jiitu tu woon kon ñoom maanaam seen relation ak noonu mooy lakum diinukum waliya diin maanaam nun ñoo ngi ñoom amuñu benn problème ñoom dañoo am seen diine di ko doxal ñoom suñu diine di ko doxal waaye nun mënuñu du juboo ci pas-pas yi principe yi ndax ba nga ne qul huwallahu ahad ci nga ci nga ci nga wute woon ak laqad kafara allasina qaalu inna allaha saalisu salaasa chrétien nasaraan bi nee na yàlla mooy troisième personne ba ah yàlla ne la qul huwallahu ahad yéen wuti ngeen maanaam soo dee yahud bañ ne la lanceiru ibnullah kon wute ngeen yàlla amutoon les témoins de Dieu ñoom ñoo gën a sax sant njaay ci seen diine ja ndax ñoom dañ naa la sax kat iblis seytaane seytaane waaw seytaane moom seytaane moom maanaa léegi moo doom yàlla la les témoins de Dieu dañ naa la Isaa doomu yàlla la waaye ñoom da dañ saa dolli ne seytaane ci boppam doom bi bi yàlla kon kon noonu mënu ñoo ànd kon xul fa laaw ci ci axat kon daal lëkkum jiñugum wala ji kon daal ci pas-pas waaw ba ci yahud yi dañoo wute ak ñoom waaw loolu ndax dañ ne Uzayr doomu yàlla la bismillah ci nasaraan yi dañoo wute ak ñoom waaw ndax ñoom nee nañ Isa doomu yàlla la waaw ba ci seen biir Waaw.
tudd nga fi ñoo xam ne dañu naan Waaw.
seytaane doomu yàlla la doo doo doomu yàlla la Eh, eh, mu Isa doomu yàlla la teguñ ci dañu ni Mariama bismillah ci la bokk ak loolu waaw moom moom mooy mooy mooy mooy mooy ndayu yàlla ji waaw mu ngoog mu ngoog wala ñu jëlal leneen muy ruuxul quds mu xursu Saint Esprit daal di koy boole ci yàlla yi waaw doon indi yàlla mi père yàlla mi doom bismillah yàlla mi baay Waaw.
ak li muy sole waaw muy trinité secret bi.
de trinité mi- de Dieu mi ngoog.
waaw trinité bi Aha.
sala sarus bi aha aha bismillah aha muy ruuxul quds boobu Waaw.
waaw lé- léegi kon ci pas-pas dañoo wute ak ñoom waaw kon bi jullit bi ne qul huwa allahu ahad allahu samad rek wute na ak ñi nga xamante ni dañu ni yàlla ba noppi bëgg ko wutal ndey wul bu bëgg ko wutal doom bismillah wala ñu koy wutal denn dox waaw lu ñu tudde leneen ci pas-pas yàlla lu dul moom si Moustapha ci wuute boobu du du tee ah dafa mel ni am nañ ci ñoom àq ndax li ñuy tuddee ay religion monothéiste mooy diine yoo xam ne dañoo gëm ni xaj na am na ñoo xam ne dañ naan malgré ñett yooyu dañ naan teewul ñett la yu nekk ci biir kenn benn la loolu dañ koy faral di wax léeg-léeg dana gis wootekat bu mag a mag a mag ñu xam ko Ahmad Didat daan faral di lool di dellu ci ka- yooyu ci li ci am ci ay contradictoire li ci am ci tanaqut ni ñett la ba noppiwul bëgg a wër ni ñooy ñett yi benn la noonu la salaasa doon fii waxit sala sa toon fi waxeet aha ñett yi yëpp rek égal 1 Benn.
3 égal 1 la Euh, euh, euh, euh, kon dafa mel ni am na lu ñu séq ak ñoom gëm nañ daal ñoom ni am na téere ju bopp bu ju bàyyi ko asamaan am na téere bu bàyyi ko asamaan ñëw ci ab yonent dafa mel ni ci wàllu woowu wenn yoon lañu bokk ba ci feew xam ni euh, yoon waaw seleb yoon la waaw c'est bien.
ñun ñu jaar ndeyjoor ñoom ñu jaar càmmooñ Bu wér.
waaw ci ci pas-pas ak tànneef ñun ñu gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi alxuraan nee na ñooñ duñ ñu gërëm loo mukk walan tarda ñoom duñu am lu leen neex ci ñun mukk lu dul bàyyiwuñ liñ nekk topp leen est-ce que loolu du responsabilité bu ñu war a sentir ci wax jooju kay xam nga tey ci misaal dëkk bi ñu dëkk bu- bu sell bi xam ne sëñ Tuubaa ko ko sellal wala yàlla ko ko sellal jox ko moo- sell nag rek moo- mooy lu lu baax rek daal du moom xam xaddas ba- baat bi duñ ko réyal ba mu rëy waaye mu xaddas moom mooy lu sell rek loo xam ne daal lu lislaame la tey suñu mbokk yooyu te man nag dama leen di félicité bu baax te nasaraan yi ñu ngi fiy liggéey liggéey bu am solo fan fii ci Touba. liggéey bu am maanaam wax ne moom maa dama leen di félicité man ndax na- ndax ñoom ña ña ngi fay liggéeyal seen diine fi ñu toll ci dë dëkk bi hôpitaux yi faw sëy nekk ndaamaatu kilifa yi wax nañ ñu ne kat maanaa léegi wu- ci weer wu jot nangami xale yoo xam ne ay liir lañ ay jurim lañ da- dañ leen jëlee fii yóbbu leen ca kër sër yi moo xam mbar lañ nekk wala Mbàkke wala Mbuur wala Thiès wala Dakar da nga cee dégg ku ku sant Mbàkke ku sant Bousso ku sant maan naa neneen loolu moom am nañ ci ay firnde loolu ñu ngi ci biir dëkk bi maanaam ñoom nu nu ñuy def mooy maanaam ci hôpital bi koo xamante ne da nga fi am doom nday ja nelaw na ay bokk mënuñoo yor xale ba dina la sëriñ dañoo mën mën nañ ko du dina laaj dara wax nañ ne kat am na fi koo xam ne mu ngi tuddoon sëñ Modou Moustapha soppi nañ tudd wa tur wala tuddee ko Pascal fii la jógee ci Touba soppi nañ ko ab chrétien ku tuddoon sëñ Saliou soppi nañ ko ab chrétien Max la tudd ku tuddoon sëñ Touba ñu ngi ko tuddee San soppi nañ ko ab chrétien am na hôpital bu mag ci Touba boo xam ne am na fa waa joo xam ne médecin chef la foofa ab chrétien la Moustapha Diop moo ne ci ay kayitam dana jëm ay mbokkam yëpp ay murid lañ gaa yee la yarool doom la ci mi ngi ci dëkk bi lan moo tax loolu lu am xam nga ci ca 1902 ci Égypte chrétiens yi dañoo toog ne ah ñun kat gis nañ ne suñu woote bi ñu tuddee ak takris ñu tuddee takris daawa bi woote bi kat mel na ne xaw naa daal yolom ñu ne luy pexe ñu ne nañ ubbi kër sër ay hôpitaux yoo xam ne ay jigéen ñoo fay liggéey di toppatoo ay xale ñu ne suñ ko defee maanaam léegi ji jigéen ñi nga xam ne da dañoo ñoo am doom di di dikk fa danañ mën a dugal ci seen xel ñu ñoom suñuy xalaat suñ su suñu demee ñoom ñu ñu mën koo dugal ci seen xale ya waaye loolu loolu duyut ñu ñu léegi nañu ubbi nañu ubbi ay malaj yi barab yoo xam ne ay ay ay barab yoo xam ne dañ dañ fay for sax indi jirim ya yaral leen suñu bopp bu ñu leen yaree dugal ci su- suñuy xalaat ñoo ñoom nag ci ci caw nañ pexe da da ngay nekk ci biir maanaa léegi kër sër saa su da- da- dañ la jàngal suñ dee nag di jàng nag maanaa christianisme nasaraan suñ ko dee di jàng da- dañuy dem ci église ba dañ koy jàngee wan nañ la la noonu suñ diine mi ngi nii xam ne léegi da ngay am xochon daal ragal yàlla ragal gi sëgg def nangam ñu jàngal la diini ji bu ñu la dee ja- ja- jàngal christianisme da- da- da- dañ naan la relation bi diggante Isa yàlla ci ci ñoom ak nit ki doomu aadama bi nee na mooy maanaa léegi ak ak baayoo maanaa léegi waaw baayoo ndax ci diin seen diine moom Waaw.
lépp seen lépp jaamu yàlla Jaamu yàlla.
ca église ba lañ koy defee mi ko mi mi- mi ko fa la ñuy baptiser Lépp.
fa lañ mooy fa lañ lay Ah, joxew tur mi ko fa lañ lay defale communion mi ko fa lañ fa ngay defee say messe lépp ba ba ci sax daanaka fa ngay confessé léeg-léeg mooy boo kay.
duggee ci bàkkaar ba ni da nga koy tuub fa ngay dem Tuub, tuub.
tëjoo fa ak ki nga xam ni moo fay sa njiitu diine wax ko li nga def ci rëcc ko mi ko mu garantiral na ni la ni yàlla jéggal na la su kookul xufaan te sax sax da ngay fay de ndax xam nga loolu da ngay bind dañ lay bindal këyit nga ne man de- de- njaaloo naa sàcc naa nangam ñu totaliser ah su su- da ngay da ngay joxe nangam soo joxee nangam ñu bindal la këyit ne la doo jaar ci matar ba maanaam doo jaar jeexan na direct direct te àjjana am njot la ah mu- mu- ci ci am jot la foofu foofu baaba sanuda ma dëkkoon Égypte te faatu bi weggut mujjoon na sax tere ko évêque yi nga xam ne xale yu ndaw yi nga xam ne ñoo daa def loolu ndax dana dane xale yu ndaw yooyu wéet ak jigéen jigéen ji di di la di la wax taarixam bu bu bon on a fii njaaru na ne nee na loolu wóorul nga nga xamante ne léegi suñ koy defete léegi bu buñ wéet ak jigéen yi loolu loolu loolu loolu ñoom ñoom seen de problème bi biir la waaye léegi fii ci dëkk bi. nga xamante ne ku koy wax ñoom si seen xa ci ci ci ci xaar boobu jàll na maanaam léegi ñoom ñu ngi fiy jël xale yi. ndax léegi eh, dëkk bi fi mu toll ay seex dafay bari lool. ci hôpitaux yi nañu daanaka léegi jigéen ñu bari bu ñu amee doom ay seex lay doon. te léegi ay seex daanaka ma maanaam koo xam ne ni sa sa loxo jotul sa ginnaaw doo doo ko mën a toppatoo ñoom léegi médecin yi seen bopp ñu ñu ñëw leen di proposé ne leen ah pexe de amu ji yóbbu leen ko ca kër sëriñ. ñu ñoom am na ci directeur bu ma ma déglu bu bu ni noonu bañ bañ bañ fa demee mbootaay gi ñuy wax ci xitma ak xitma. bañ fa demee di di gëstu loola. dañ ne ñu de noonu ndokk ba ngeen dikkee ndax ne tuuti kon sax ñu ñoo xaw a jaaxle ndax dañoo dañoo ne waaw mbaadu chrétien yi ñoo gën a fonk nit ci jullit bi ñoo ko ñoo ko déet lislaam kay préparé na lépp.
waaw foofu laa bëggoon a ñëw ndax am na ci information yoo xam ne yaa ma ko jox ni xam naa ne maa ngi ñi ci yem mooy ñan mooy da ngay wax léeg-léeg ñun ak am nañ ci ñan ñan ñooy yéen nun ab mbootaay la goo xam mi ngi tudd alxitma fii ci Touba moo mbootaay la ko tax a jóg mooy yee nit ñi sensibiliser leen ci ñu doxee leen yaag jëfante ak suñu diggante ak chrétien yi suñu diggante ak ñëpp daal ba lépp pëy wen kenn ku nekk nag am fooyam ci sa moroom loo xamante ne du laal pas-pasam.
sàmm ak moomeel.
ñu ko sàmm moomeel. ñu nekkat léegi boobu bokk na ci Tuubaa gis nañ ne kat léegi chrétiens yi ñi ngi ruuroo. ndax ndax loolu ñi ñi ngi jël suñuy doom di ko yóbbu ca ji ji leen diine. waaw noonu bu ñu demee bis penc te te teg sëñ Tuubaa mun nañu waaw Moustapha Diop. Moustapha Diop moomee ca hôpital Sàngam. moom anamu ah mu de génn na ca diine ja mu ne lu ko waral ma ne ko moom de dafa ñàkkoon ndimbal. lu ñu koy wax kon. am na ku ñuy wax diw sàngam. tër bi ni fi ëpp sëriñ ci Touba ba wàcc ñëw ci Mbàkke ci sër yi di fi liggéey. gaa yi soppi nañ diinam dem na ci ëpp sëriñ man ànd ak sëriñ Fallou Ndiaye sëriñ Abdou Khadim Mbàkke nga xamante ne ñoom lañ bokk liggéey bi ñu bañ fa fa demee wax ko sëñ ba ne ko sëñ bi day diw sàngam day fi tër bi sëñ diw la. te fii la tër bi yoo mu ne wax ko kooku xamoon naa ko fii la tër bi yoo ñoo ko léegi nag dem na ci chrétien ya tegu ci baat moom. ñu ne ko sëñ bi ma ne ko sëñ bi yow day sa dëkk sàngam boobu chrétiens yi ñëw nañu fa fan yii woo dëkk ba yëpp di leen dikk ab dund mu sëkk.
ñu ñëw ci ci dëkk bi.
waaw dafa mel ni ci aaya bi wala tarda anka al yahud wala nasara xatta tattabia millatahum.
waaw topp seen milla.
waaw topp seen yoon. yàlla teg ci ni qul inna hudallahi huwa al huda. waaw njub gi nga xam ne moom la leen yàlla tànnal. ca muy alxuraan ak la mu làmboo. loolu rek mooy ak njub.
waaw suñu safaa njub gi ñu Serigne Touba bàyyee. njub gi ñu nga xam ne mooy hudal la gi nga xam ne daf ko yeesal. tàggat ci tàggat ñu ci laay wax. yar ñu ci. làggal ñu ci ba ñu nekk ci. ndax da ngaa yëg ni kon am ruura nga koy mi ngi koy mi ngi koy mi ngi koy foog.
xam nga loolu Sëñ Tuubaa bind na waxoon na ko projet moom Sëñ Tuubaa ñaan ci moom. maanaam mooy ñaan buy ñaan suñu tubaab day soxla biig am am xaalisam yoru ab téeméeram bëgg a jënd biig am ndaw lu ko ko jëndalee mu ne mu ne xale bi dama jënd leen biig ba ba rek nag ne yàlla may ma biig. xam nga lu tax dafa xam ne yàlla su ko neexee téeméer na fi xale bi ne fi te ba noppi biig du am. bitig ba mën a tëj bitig ba mën naa xuloo yow. si suñ duggoon léegi ñaan gi loolu la. suñu tubaab dafa waxoon ne wal tubasir bi yel yataama jamian ansihim bi abaahum kulla xiin yow yàlla fàtte lool jirim yi ñàkk nga ñàkk woy jur fàtte loolu ko ci ci man na nga leen ci bégal ba loolu amee noonu ñu ne kat noonu mbooloo moom ñu naa xir ma ne ko léegi nan jóg jëmmalal sëñ Tuubaa ba waxam jooju ndax sëñ Tuubaa nun la sëñ Tuubaa projet am théorie ba nga ko pratique bi nun la ñu ne nañ ubbi kër Maam Jaara boo xamante ne léegi jirim yooyu nga xam ne ñi nga xam ne mënuñoo yor seeni doom ba dañ yóbbu ca ñeneen ñu leen di sopp ñu soppi seen diine noonu noonu nan nan nan wut kër maam jaara goo xamante ne da leen di man di saytu kër gi taxawal nañ ko maanaa maanaa la vingt-trois maanaa yaakaar naa su yaakaar naa suyee ci lañ demoon ca sëñ Amadou Mokhtar sëñ Sidi Mokhtar dem nañ ci moom wax ko laaj ko ci ndigal ba mu jox ñu ci ndigal taxawal nañ ko ma nga ma nga ca wetu kër sëñ Mourtala gi ci bassin bi. waaw. waaye nag la ca la ca gën na am solo nag mooy wax nañ ko benn kilifa ñu ñu dem fa di ko ko wax ma ne ko nag ah sëñ bi day noonu lii ab idée la ab xalaat la yëkkati nañ ko ba noppi dañ ko yëkkati nañ bu ñëpp yëg ko xam ko su essayé ñëppay essayé noonu amuñu doole amuñu mënuñu koo noonu taxawal. da taxawal na daal jumb yéen ndax ndax tey kër gi tey ñu dalu yaakaar naa fukki gone foore ne mën nekk te ñi ko soxla ay ay ay téeméeri téeméer lañ loolu ko kon moom maanaam léegi ñi nga xam ne ñoo bokk am ak bokk gëm-gëm gëm lislaam gëm ne walantardaa jooju mi mi ngi dox ba tey gëm ne kat maanaam lislaam li leen li leen leen dimanche sa tuur sa boo xam ne ñu gindi ci sa loxo kenn moo gën ci yow maanaam li jant bi fenk wala bokk combru na am nam nam goxoon noonu nan jéem a fexee ba dab dabaatal ba ba sunu gone yooyu du ñu génn ci diine ji dem feneen sëñ si doomam pratiqué na ko moom sëñ Tuubaa ginnaaw nee na ansihim bii aba om ku laxin la ko de jamono ju nekk xam nga jamono ju nekk mooy sëñ Tuubaa su su fi nekkatul it noonu ñu ngi fi nu ñuy représenté si Sëñ Tuubaa bu dee gëm gëm nañu ko laa de nu ñu gëm Sëñ Tuubaa naan fexe ba jamono ju nekk maanaam léegi benn jëriñ du génn Tuubaa di di wuti ndimbal fenn yaakaar naa yaakaar naa loolu loolu loolu moom te mën naa nekk Sëñ Tuubaa xéwalam gi bari na xéwal gi yàlla bari waaw xam naa ni am ngeen responsabilité bu mag xam nga man gis naa ci yenn ci dëkk yi soriwul sax fi daanaka fii ci Bawol am na fi dëkk yoo xam ni daanaka dégg naa fi benn dëkk boo xam ne mi ngi fii ci njaareem bu nawet jafe nawet amul maanaam mbay mi gàndu waaw daanaka at ma ca topp ñëppi ay labbe la ñuy doon maanaam ay nasaraan la ñuy doon wallaahi bu nawet amee ba nga xam jekku nañ seen bopp soxlaatuñ dund kenn ñu doonaat ay sëriñ ñoom ay sëriñ la ñuy wax mooy ñu doonaat ay jullit ca loolu mooy dañ fay gis ay ñu leen di dimbali di yor ay meew di yor ay sukkar di yor ceeb ba noppi ñëw di faje di may ay sànke ak yu mel noonu di def ay politique di di leen jàngalaale seen diine bu bu bu wér te loolu néew na nga gis diine ji di ko def fii ci réew ñaare bu amee rek ñeneen beneen xaraka bu jógee bitim réew lay doon beneen mouvement bu jógee bitim réew waaw waaw ñëw ci biir réew mi di ko def di ko def ci turu li ñu tuddee daawa mooy di woote woo comme fa fallaa am na fi di fallaa jamono jii mi ngoog mais nag dama naan kenn ku ci nekk am nga droit waaw kuréel bu ne am na droit woote woote waaw ndax lislaam sax sunu borom tabaraka wa taala dañoo diggal ñu woo nasaraan loolu la kay ñun ñoo ngi dem dugal ñun ñoo ngi dem dugal waaw di tuub di tuubloo ay ay ay ay yëfër ay nasaraan ah dëgg yàlla sëriñ Mutula lim tuubloo kenn xamul lu mu toll bari na lool ba léegi am na ñuy tuub ci eh, loxo sëñ Maam Mor am na ñuy tiib tu- tuub ci yeneen sëriñ yu fay dem Bu wér.
kon ñu nit ñi ngi def campagne di dem di leen jéem a wan lislaam mbaaxoog lislaam di leen woo pour ñu dugg ci kon ñoom it am nañ droit fekk si ñu de Waaw.
am nañ droit wootee ñun dem bu wér waaye nag eh, li ma wax fii léegi mooy da ngaa gëm ni ñag bi ñu ngi koy ruur te dañ ko war a sàmm ngeen def action yéen Waaw.
mooy toogu leen rek ci di xalaat ak critiquer yam ci wax wax wax wallaahi man raa amin ko mu mun ko ren fal yuxayiru yemu leen ci taxayir bi lisaan waaw waaye da ngeen ko da ngeen cee boole nag billet loolu loxo waaw mooy action dajale ay man-man ne ngeen dajale ngeen ba dajoo te dajale lu war a tolloo fukki gone yooyu ci SOS yi lañ ko daan gis ak yeneen yeeg comme curseur yi nga daan wax nii Waaw.
ñuy def ay œuvre yu mel noonu di dajale xale yi ak di leen toppatoo waaye nag li- xam nga dëkk bi dëkku ndigal la dëkku ndigal la foofu laa lay gën a interpeller mooy est-ce que li ngeen di def nii eh, da ngeen ci am ndigal ndax nit nit mën naa seetaan émission bi sax moom am ci beneen raddu fi'l am ci beneen réaction bu bokkul ak Bu wér, bu wér.
waaw waaw ak yéen ñu ngi ci amoon yow maanaam noonu bañ ko xalaatee léeg-léeg lañ ne bii sëñ Sidul Muxtaar sëñ sëñ sëñ sëñ Seex ci coro kere fekke na ko ñu ñu maa sukk fi kanamam leeral ko lépp mu am ak mu am ak digg dafa dafa dafa taxaw dafa toog diglu mbooloo mi kii mu diglu benn waaye sax bëgg naa dugg na naa naa ko kii doomi sëñ mu njëkk jóob la mu ne ko mu ne ko ci ci ci xam naa ko ñu tuddee tekk mu mu leeral ko lépp róor mi ne ko daal ñi ngi ñi ngi róor ci dëkk bi dara waralu ko lu may ñàkk tax ndimbal nu nu nag danoo jóg noonu ngir bëgg a wut kër maam jaara goo xamante ne dañ fay dajale ñooñee nañ koy defee it mooy kat du bëgguñu koo jëggaani fenn ndax sëñ Tuubaa am na ko maanaam da danoo bëgg donga yi jullit ñi képp koo xam ne mën ngaa jaayante ne ne wers wu wu- wu jot mën na maa joxe nangam te loolu wér fi yow ndax ñi koy saytu nee nañu kat faw ñu ñu ñu ñoom bit si annuel wala bit si boo xamante ne weer la xam ne léegi ndax ndax ci xale bi mun taxaar xale moom bokkut ak mag ne ko daal noonu la ñu cee mu ne ñu maanaam ànd na ca te dana baax. ba ca jógee dem nañ ca sëñ maanaam sëñ Muntaxa sëñ Seexum Sëñ Abdu Xaadir sëñ sëñ sëñ sëñ Amadu Moxtaar dem nañ Daaru Muxti maanaam léegi dem nañ maanaam léegi ci Baay Faal yi xa- xalifa Baay Faal yi dem nañ fépp fépp nañ fépp rek kër yu mag yi kër sa- kër kër sëñ Isaa Jenn kë maanaam kë- ci kër sëñ Daaru ci Asan dem dem nañ fépp kilifa yëpp daal kilifa yu mag yëpp daal daanaka dem nañ ci dem nañ ci ñoom maanaam dem nañ ci kilifa kilifa yëpp daal ñëpp daal ñëpp si sa sëñ Moustapha Ndiagne si Amadou Mokhtar sëñ Maamoor dem nañ ci moom ña- ñaari yoon fekk ñu ko fa ñu ñu mujj dem nañ ca ca sëñ Fallu wax nañ ko ko sëñ Bass Simatulaa wax nañ ko ko mu kilifa yi yëpp kenn ku nekk bu ñu bu ñu la ko waxee sëñ Muntaxa bañ ko ko waxee noonu muy muy muy waxam dane kat na ngeen sant yàlla liggéey bu seen sëñ Tuubaa la boo xamante ne yéen ñi yàlla dimbale ba ba jëkkoo def ci seenu num xel daal di ne ànd naa ci ci yéen dana ko dana ko ànd ak yéen ma ma maanaam ci ci ci hôpitaux yi waaw sëñ Tuubaa da nga wax léegi-léegi baatub xoromu xam naa dinaa xoromu tuuti waaye jàpp noo ni catholique yi bu ñu gisee ni ñoom la ñu nekk moo dig njub ñoo moom hudaa ji qul inna hudallahi huwa al huda ca dañ leen a yéene njub googu bëgg leen a dimbali rek ndeysaan bëgg leen a xeetee ñëw ci seen i yetaama muy seen i jirim ñëw ci seen i lompoñ waaw.
ak seen i jigéen di leen may garab gratuitement Wallaay.
di tabax ay kër di leen ci yóbbu Ah.
di leen jàngal di leen faj waaye xanaa li ñuy def lu baax la si Moussa
moo tax man dama dama di félicité lool baax na de gis nga baax na de jàmbaar lañ waaye nag ñun sunu yow si la ñuy feeñal
waaw noonu Eh.
maanaam en tant que jullit en tant que rawatina murid Mhm.
yaa fu sa mooy loolu too Tuubaa li fi ne ci alal déet murit moom Moussa Yafus de ah, yaa fu sa léegi de ah, ginnaaw roon nañu ko tool bi ñu koy roon ak la waaye xaj na xaj na am na ci moom mooy ñàkk a ñàkk a bàyyi xel Ñàkk yu am bari conscience.
bari ak waaw ñàkk a fo- fokk ak manque de man conscience fi ñu toll maanaam tey kilifa yi kili- kilifa guñ dem bu ñu la waxee yëf yi ni mu demee róor mi mi ci mi ci dëkk bi da- danga tiit yow ko xam nga sëñ boobu ma ma ne ko yow sa dëkk ba sax de gars yi ñu ne fan yii dajale dëkk ba di leen digg ab dund s- sëñ boobee lu ko tee mën a nawet bi jiwul su ne lu lu tee mën a wut nanga muy bëri koy dugub ak ceeb yóbbu ci dëkk ba waaw léegi mbaa du yem foofu ndax di nga wax fi ni ni léegi benn responsable ci benn barab bu ñuy faje wax na la lu mel noonu Waaw.
ni la kat yéen maanaam bu nga ñëwutoon dana ma- man maa naroon a jóg ndax dama leen naroon laaj ndax xanaa diine yi nasaraan moo gën a fonk nit moo gën a fonk xale moo gën a fonk néew ju doole ak kër jorot na jiirum ak yu mel noonu ñi ci ñi ci prison yi ne ci xat-xat nga xam ne ay prisonniers lañ ok dañu gis ni lekk-lekk bisu dimanche day jot wér.
ay nit dem mees jóge fa defar ay ay ndab yu baax fekk Alhamdulillah.
leen fa faj leen jox leen ay yére fóotal leen def na lépp te duñu leen seexlu asanta loolu am solo la.
dañ- dañ loolu dañ koy gis mu mu bari lool Bu ñi wér.
ñi jàpp ñi ci hôpitaux yi dañuy gis ay nit ñëw fekk leen fa di leen may ay garab léeg-léeg ñu jënd leen ordonnance di leen may ay sànke di leen toppatoo ba sax di leen fóotal léeg-léeg seen i yére bu wér mu leer na la ñii ñi ngi ci ci li ñu wax dañ ci jublu jaamu liggéey yàlla waaw de yàlla de yàlla dañ cey jublu liggéey dañ cey jublu dañ cey jublu jaamu waaw yàlla ñi- ñi- ñi- ñi liggéey.
ñun nag nee nañ yàlla ñoo ko moom ñoom ñu nee nañ yàlla ñoom ñoo ko moom wa- waaye ñoom ñi ngi jëf ñi ngi jëf Waaw.
te it suñu borom nag dafa dafa am lu mu jàng ci alxuraan Loolu la wa amilu solihaat loolu la kay jëfi aw yiw moom Waaw.
julit ci suñu borom tabaraka wa taala da ko cee soññ da ko lool loolu wax la kon mbaa yemale wu leen ko ci jëriñ ñi rek maanaa da ngaa dafa dafa mel ne yow da da sunu sunu programme da nga koo xam lool maanaa maanaa pression yooyu ci la bokk. ndax dañu dañoo gis ne seetlu nañ ne kii rek ci chrétien yi saa su samedi dimanche ñëwee da da- dañuy dem ci ñoom. di leen dëfal di leen di leen di leen jox ay ci cay ndimbal. yemuñ ja di defar seen xel. maanaam psychologie yan dañuy defar seen xel. defaree loo xamante ne campagne ñaale ca ndax dañ leen di wane ne ñun de ñun suñu diine nii nii la mel. duñ fa gis benn sëriñ boo xam ne dana dem dugg ca maanaam léegi ka- ci kaso ba ak crime ak yooyu déedéet. ak it jéem a xam ba xam seen dundin nu mu mel ak ndax war warta am changement am déet. moo tax chrétiens yi ñi ñi ñi ñi liggéey loolu bokk na ci programme bi. ah am na sax leneen lu- lu ko ëpp doo fay dañoo dem janatu ñu ñu wax ñu benn.
suñu ne borom nattu ñu am xel mu mi ko mi ko ci xel ci xel moom mu wàññi ko maa ngi maa maa ngi tuub ca tur dafa bi mel ni dafa baax ci dëkk bi ba- ba- ndax lool.
ginnaaw dëkk xéewal la boo xam ne foo foo jàdd mën ngaa xéewlu mën ngaa lekk Di- ci xéewal yi di- bari di sax- dañu bari- dañu bari ñu fi ñëw di sax ndax yëngal lenn am na ñu fiy tuuri si ñooñu
alors moom mosuma ko yëg am na sëñ bi bureau bi bari na am na ñoo xam ne dañuy jël ñu ñu seen xel manqué ci ay oto indi leen fi waaw loolu nag xañ na yërmande Serigne Touba ji baaw ci ci dëkk bi rek ndax ndax xañ na ndax xañ na doon ku manqué xel ci Touba moo tax ne doon ko feneen niñ la yërmi fii moo gën niñ dét la- moom waaw, dafa koy waaw.
daa gën sax ci ci ru waaye nag waaye ci ci waaye nañ na kilifa yi xam ne am na ñuy de liggéey noonu liggéey jël ay ñu ñu seen xel manqué di ko indi ci dëkk bi kon ñu war a def ay centre d'accueil ah barab yoo xam ne bu ñu jëlatee yu mel noonu fa lañ leen di yóbbu mi ko noonu fi Yé- yéen a ko war a def maanaam suñu projet bi bokk na ci ndax dañ ne dañu dem jenentu ñu ne ñu kat am na waay joo xam ne jigéen joo xam ne xel ma da- ma daa manqué benn saay saay saay saay ko mu ëmb bi bi bi muy am doom sonn ca ba mujj sax for ca la faatoo façon faatu na. maanaam ci ci hôpital jannatu fan la la faatoo ñu ñu ñu ne nag noonu nag noonu maanaam soxna muslim si sëñ Tuubaa. daana ci liggéey liggéey bu am maanaam rahimahullah daana jël ñu mel noonu di leen yóbbu këram toppatoo sang defar bañ a hiilaat defar leen ba ñu dikkaat seen xel dikkaat moo moo moo moo du du dugalaat leen ci société bi noonu noonu noonu am nañ ci xaat boobu. am nañu benn am ngeen projet nday Projet mus- boobu.
nday musli nday musli ndax yàlla alhamdulilah sax day indi nga tur nday musli ndax yàlla yàlla ko fay nday musli sax la- la- moom moom lay tudd am nañ beneen mo- mooy ñi nga xam ne dañuy dégg Sëriñ Tuubaa ñëw ci dëkk bi dëkk jëbbalu bu ba jëbbalu dañu daan sëriñ si amuñu jot a toppatoo ñu bëgg centre yoo xam ne dañ leen seen centre d'accueil yoo xam ne dañ leen fay kii jàngale si si Sëriñ Tuubaa njàngale li moo xam ne ni Sëriñ Tuubaa bind waxuñu nag Sëriñ Tuubaa am bay góor njaay mooy Sëriñ Tuubaa mi mu bind sëñ tubaab mi ñuy for ñu benn bi peut-être waxuñu woon nit ñi yow yi bind kuréel yi ah, léegi loolu ci ci xalaat la bo bo bo boo xamante ne. gis nañ ne maanaam mënut a ñàkk li amaan na beneen projet bu ëpp boobu nag. danoo bëgg ne ah suñu mbokk chrétiens yi de ñoom jàmbaar lañ kon nañ nañ ne roy. ixwaanu muslimu ne ah léegi day nangu roy leen ba nekk ah. loolu ah moo ne ñoom ay ahwaa lañ yore de de al xikmatu daalatul xoolal mu'min xoolal aaya baa ngi di suñ kanam wala wala in ittabaata ahwaahum waaw waaw.
baada la si jaaka min al ilm ñoom suñu borom ne yoruñu huda
waaye ñoom waaye ñoom.
yàlla nee ginnaaw na yoruñu ak njub waaw.
ñoom ay ak caaxaan ak neen ak buñ teg ci bànneex rek lañ noore Aha.
ah li ba noppi ngeen bëgg leen a roy maanaam ñoom seen pas-pas mooy caaxaan waaw waaye pratique bi baax na de.
ah pratique baax na de.
d'accord.
xam nga ci ixwaan muslimin les les les frères musulmans ñi ngi royee seen organisation boobu ñu ngi ko royee ci chrétiens yi Égypte chrétiens yi lañ ko ko jëlee ah maanaam ci ci Xasanul Banna bind na ko nee na ñoom ñu ngi ko royee ci gaa yooyu ak suufenk yi da- dañoo dañoo co- copier chrétiens yi ak suufenk yi def seen loolu noonu nag ginnaaw chrétiens yi dañuy dem ci dëkk kaw yi def fa ay ay poste de santé yoo xam ne ngi- ci ngir dimbalee gaa ya ubbi fa ay ci ay- ci école noonu bëgg nañoo def loolu maanaam bu bëgg bëgg nañu ubbi ay poste de santé ci bi ci ci maanaam dëkk kaw yi ba noppi ubbi fa ay école bënn fa ndox ndax ndax nu ñu xa- ci xam nga xam xam nga lislaam ju ñu bëgg nga wane dëgg lislaam ci lecture Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa nu mu nu mu jàngate li- lislaam mooy xidma Sëñ Tuubaa xidma action boo mën di def boo xamante ne dana xidma daal ngeen bëgg a Jëmmal.
bañ a yamale léegi ci mbalem tàkkusaan mi eh, buub ju Naan kafe.
naan kafe ah, defaraat eh, garab yi da ngeen ko bëgg a génne léegi mu mu ko ci ci xam mu nga dem xet ba dugg ci vie sociale bi mu ko waaw defar ba dem ba defar eh, toppatoo maanaam daal di yittewoo aje nit ñi ak di taxaw man na xidma fa eh, ci ci waa Turki Turki am na am na fa benn mbooloo mbooloo moo xam ne xidma la ñuy dund liggéey nañu dul jeex waaye nag am na lu lu- lu ñu tooñee lu lu xorom tooñe loolu loolu solo la benn waaye da- da- dafa laaj kenn ci ñoom ne ko nun day sama yàlla murit nun tu- Tuubaa nañu am nañ xidma mu ne ko ko waaye nag yéen li li ñu wuutee yéen mooy da ngeen jën jël milliard def ko ci ciment ak fer nun nun ñu def ko ci am usine bu ëllëgee mu mën a jur lu ko ëpp loolu loolu am solo de. maanaam ma maanaam développement tanmiya. tanmiya mustadama. maanaam naa léegi eh, développement boo xam ne durable la ne na na milliard bi nañ ko def ci loo xam ne day jural.
waaye man mën naa am nag loolu gisin la rek Di- di- di- loolu bu ñu ko discuté woon ba tey rôlu juma ak rôlu kii léeg-léeg mu di- ëpp rôlu di- di sax di di xam nga giseen la waaye giseen bi sëñ Touba da- dafa gënoon a yittewoo ni- maanaam nit ñi ci allahu akbar ju ju- jàpp allahu akbar kepp. bu nit ñi lëkkul allah allahu akbar da- da- kenn ko dégg.
ah déedéet sëñ Touba ca njaareem ca euh, day kay ci ci ci ci kambil lépp lu ñëw ci- ci lu baax alal ñu- aw ñam baax daan nañ ko yóbbu ca maanaam ñoñam ña. ñoñam ña ñu nañu bis ma mas naa séddale wax eh, ci ay xar yu baax la la moom la jël tabaski daal ne nañ ko ko joxal ñoñam ñi.
dëgg la mag sëñ Moussa xam naa ni ok man maa def rek tu- tu- tuuti rek. mag ma da- daal di ko yóbbu ca doomi mi sëñ bi. sëñ bi laaj ko ne ko ko jox ne ko sa sa doom yi da laa ko jox sëñ bi ne ko déedéet waa alxuraan la wax.
allahu akbar allahu akbar allahu akbar jërëjëf suñu sowa xam naa ni ah ok waxtaan jërëjëf waxtaan wi ab tàmbali lay doon waaw waaw jërëjëf.
yàlla nañu yàlla may bu dul ci weeru koor gi itam nekk ci yeneen jotaay insha allahu taala ndax xam naa numéro yi xam naa tu ko mënoon jël. wala du du ko jàll.
Mhm.
ah be- be- benn numéro rek maanaam 584. euh, te- te 358 49 49 68 jamono la.
mooy mooy mooy yéen waa xidma wo- ci waaw.
insha allah benn bi si si si 664 en 61 40. ba tey tegu la.
ca ca li ci doy waar nag mooy maag maag maag sunu mbokk téléspectateurs yi Waaw.
ñoo ñoo découvrir andoo xidma ok ci sunu plateau bi Ok.
la xam ne ci li ñu bëgg a waxtaan ok ndax dañoo tànn ok.
lu tëdd an ka ok ok nasoora waaw loolu waaye.
ah yow nga indi ci xidma ok waaw.
tubarkalla tubarkalla tubarkalla yàlla yàlla doole barke jërëjëf kon mbokk yi ñu di leen dig daje insha allah ci beneen jataay seen émission bi niral wax yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين